koo xeex ban jàngat lañ ci mën a am ban lecture. Euh, jàngat bi biñ ci mën a am mooy euh, démocratie bu dellu ginnaaw. Mm-hmm. Euh, yaakaar bu tas ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wax naan dañoo wo dañ leen woteel pour rupture ndax suñu gisee ni ñu jàppee président Bougane Gueye Dany mm-hmm. ni ñu ko doon pamte pamte violence physique bi wax ju tegginuwut ji mhm. euh, dañuy gis rek ne euh, dafa mel ne ñi ko doon jàpp dañ leen a xabtal dafa mel ne dañ doon euh, exécuter benn commande mhm. ndax mbir mi mën nga arrêté nit mhm. mu taxaw nga laaj ko mu ne la damay dem Bakel il en a le yaakaar naa bi ñu ko arrêté taxaw na maintenant boo amee sa liberté ta liberté de circuler d'aller et de venir ñooy la doo dem Bakel mais lu tax doo dem Bakel Bakel ci réew mi la bokk laajul visa laajul euh, beneen kayit boo war a présenter pour mën a dem Bakel surtout bu fekkee cause bi nga xam ne moo la yëkkati cause bu noble la dem euh, di joxe ay ndimbal te ñépp xam ne quand même Bougane Gueye Dany dafa yàgg ci loolu xaaru rek bu président Diomaye Faye wala premier ministre Sonko nekk ci nguur gi muy soogo di dem di def social déggoon nga fi même suñu temps bi fi nekk mu naan tibb tànk kon moom loolu mooy stilu politique am loolu mooy stilu euh, bi nga xam ne moom lay opposé woo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñoo fi nekk mhm. te ñoom ñoo ko daan ànd di ko ci def di ko ci daan encouragé kon ñëpp dañu doon jàpp ne tey su ko continuer aussi parce que lui il est constant bu bugaan mhm. euh, ils seront beaucoup plus tolérants euh, ils seront euh, mais li ñu gis mooy tey la violence bi gën a gën a gën a aay boo gisee keroog bi ñu koy yóbbu Tamba may profito di gërëm Adja Fat Diallo suñu benn militante la militante LDR Yeesal bu nekk foofu euh, ci euh, taxawaay bi nga xam ne moom ak Kassé mi nga xam ne mooy tëddali su taxaw takku am nañ ko au niveau de Tambacounda pour assister non seulement le président Bougane Gueye Dany mais assister aussi ceux qui étaient parti à son chevet muy mm-hmm. la délégation de Sàmm Sàmm Kàddu ñépp génn loolu rek moo lay wan ne injustice sénégalais sénégalais nangu ko et quand même président Bougane kilifa la euh, am na nu nga xam ne euh, kenn waru ko koo traité rébellion refus d'obtempérer outrage. ndax mais xam nga xam loolu laa lay wax ne man refus refus d'obtempérer dama ko fee gisul. Mm-hmm. parce que bu taxul woon gendarme yi duñ jot ci moom. sa veut taxaw na. Mm-hmm. maintenant boo taxawee yow gendarme gendarme bu la arrêté ci circulation da ngay taxaw. Mm-hmm. mu ne la jox ma sa vignette jox ma sa nangam wax la lan moo tax mu taxaw loolu mais bu fekkee dafa la wax ne la yow dañ lay tere nga dem Bakel te Bakel muy sa droit mais. kenn du nangu ku nga xam ne dangay ngay empiété ci say ci say droit mhm. donc jàpp naa ne loolu loolu taxawul mhm. li ñu wax yi tamit outrage à agent nañ ko prouver parce que agent bu la dóor am nga droit fayu bu la poñe am nga droit poñe ko mhm. bu la wax lu la lu lu la lu la naqari am nga droit delloo ko ko donc nañ ko prouver alors li ci des ci tamit mooy euh, bu ñu demee ba fële ba Tambacounda euh, ñu am nañu fa doxalee jël dossier corsé mais candidat leen jàpp candidat bu nga xam ne le 27 octobre daa war a dem campagne yi ñoom ñu ne le 30 lañ koy atte ça veut dire que rupture de de d'égalité am na ci diggante candidat yu nga xam ne dañu war a jongante ji premier ministre Ousmane Sonko bokk ci leaderu Pastef bu le 27 dina dem campagne yi bien sûr bu président Bougane Gueye Dany bokk ci sàmm sa kàddu du ko man mais dans quel pays sommes-nous ba ñu mën a jël ku nga xam ne euh, candidat la mais mënoon nañ ko gaaw àttee parce que bu ñu ko àttee dañ koy bàyyi. parce que lan lu fi jar jàpp Bougane Gueye Dany mhm. amu fi mais nag c'est un régime en panique. boo nekkee en panique. Mhm. tiit ci ay élections. loo gis rek da nga koy jéem a accroché. mais bu ñu ñëwee ci fee yi dañu ne président moo nekkoon Bakel et que amuloon droit dugg fa dafa waroon xaar ba président génn Bakel. président nekkul Dakar. Mhm. Bougane nekkul Dakar. ñoom ñaar duñ fi bi su nekk kenn ku nekk yore sa cortège. <laughs> boobu kan kan bay boo ñun ñëpp bu léegi bu président nekkee Dakar ñu dàq ñu man ma dellu Daaru Moussi xamu buggaan dellu Ndar wala feneen duñ qu'est-ce que président mu ngi Bakel d'accord mm-hmm. mais buggaan c'est un responsable ñi mu àndu c'est un responsable jëruñu ay kaaru kaaru militant dem pour perturber quoi que ce soit mm-hmm. mais président Bougane mënoon naa ñëw fekk président Jom Jomaay euh, Bakel mm-hmm. ñu rombante nuyoonte sax s'il le faut kenn ku nekk dem doxi sa yite d'autant plus que moom il était les kii mu ngi woon ci tali mënoon nañoo def seen mission ñoom ñaan yëpp. te kenn du boole morom da dem France wala tey euh, euh, euh, France. ñoo ngi koy waxati. Hmm. président Macron di dem fenn ñu ne Marine Le Pen du fa dem. Ah. wala nga dem fenn ñu ne non tey Trump dafiy ñëw moo tax. Kamala Harris du fa dem. Hmm. mënul nekk. très bien alors euh, sur la question des libertés président alors sept mois la ñu fi def. il y a eu beaucoup d'arrestations en tant que qu'homme politique ban lecture ngay def ci loolu. non mais Sénégal euh, mooy Sénégal dellu ginnaaw c'est-à-dire que xam nga au moins ñi fi doon nekk dañuy toog ay at ñu naan téye nañu ñett. téye nañu ñett mais fi juróom-ñaari. weer weer liñ fi jàpp ëpp na juróom liñ fi tëj kaso ëpp na juróom-ñaari nit. ci lu ñu leen di wooye premier ministre nee na chiffre bii. vingt cinq la. ñu ne ko non chiffre bi dix la mu ne lu tax ñuy wax loolu. kenn amul droit critiquer le discours du premier ministre. les habits du premier ministre. les chiffres du premier ministre. ñu woo la di la xëbal di la intimider di la di la di la sonal. nit joxe xalaatam qualifié des faits ñu oo ko di ko xëbal di ko di ko intimider mais dañu li ñu war a xam ci Sénégalais une bonne fois pour toutes. mooy Sénégal yi mënoo ko xëbal ba li mu war a wax du ko wax. mënoo ko wutal dossier wala nga koy fabriquer li dossier ba li mu wax li war a wax du ko wax. parce que fii kenn ragalu fi kaso. président Abdoulaye Wade da doon wax ne. su fekkee da nga def politique dëkk réew mel ne Sénégal te nga ragal kaso wala nga ragal dee. bu ko def bu ko def tout à parce que loolu mooy lii la ci mën a fekk. boo bëggee alal demal nga nekk homme d'affaires. soo bëggee am xaalis bari demal nga defi business boo bëggee nag maintenant jëriñ nit ñi demal nga defi politique ñi ne politique ils se sont mentalement préparés à tout. mais pourquoi loolu lan moo politique rek da nga war a dugg kaso Sénégal alors que dans d'autres pays mais mais que tout simplement fii dafa am ñu nga xam ne. Mhm. dañu nekk ci stratégie fayanto. comme ñoom dugaloon nañu leen kaso bañ leen ciy dugal kaso c'était pour d'autres raisons en tout cas nekkul woon raison wu damay dem jàppale ji waa Bakel ndax dañoo inondé. Mhm. nekk loon raison wu dama am samay critique yu may def sur le discours du premier ministre pour d'autres raison yóbbu nañ leen kaso ñu jàpp ne ñoom i tamit toog nañ léegi ci nguur gi dañu war a yóbbu ñëpp kaso loolu rek moo fi nekk amul leneen lu nga xam ne boo amee dossier ñu yóbbu la boo amul dossier ñu créer la dossier pour sonal la mais wa loolu nag ñoom ñooy yàgg-yàgg rek bàyyi parce que mënu ñoo tëj Sénégalais yépp te loolu du tax i tamit mm. sénégal yi en tout cas ñi politique am gëm-gëm. Mhm. dellu ginnaaw ci posture yi ñu taxaw parce que réew mi moo ñu ñor. très Sénégal du ñu bàyyi rek. Mhm. nguur muy def lu ko neex. te ku am xalaat doo ko wax. loolu mënut am ci réew mi. alors président tout est parti wax nga ko léegi ci catastrophe jafe-jafe bi waa Bakel Kidira Matam tund woowu yëpp dans le nord am ci euh, lu jëm ci débordement fleuve bi instant bi ñu soxla ndimbal lool euh, naka nga jàngate cette situation ak naka lañ ko war a gérer